ab kawteef bu ñu bëri donte na séntu ci réewum Sénégal nag moom la ki nga xam ne bii mooy Mollah Morgun daal di génne ndax ki di Mollah Morgun nag depuis Ousmane Sonko Adji Sarr moom da doon défendre ki nga xam ne bii moom mooy Ousmane Sonko mais tey nag dafa xëy daal di taqal Ousmane Sonko ba mu ne répp ndax kii di Mollah Morgun nag nee na diggante ak Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko nee na ba tey ab viol amu ca waaye nee na nag dafa yor ay vidéo yu doy day war ak ay foto yoo xam ne bii yu yéeme la. yu jëm eh, ci wàllum mërs ci eh, ki nga xam ne bii moom mooy Ousmane Sonko eh, kii di Mollah Morgun dal daanaka boo tënkee li nga xam ne bii moom la wax ci vidéo bi nga ne bii moom la mujj def dafa sarse ki xam ne bii moom mooy Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko nii ñu koy gisee daal demewul noonu nee na Ousmane Sonko am na leneen lu làqatu ci biiram loo xam ne bii wone ko ñi nga xam ne bii moom mooy Sénégal yi kii di Mollah Morgun nag ginnaaw bi mu defee audio yooyu wala bi mu defee li nga xam ne bii mooy live boobu daal ñu ci bari ci Sénégal daal affaire bi def leen a jaaxal ndax kii di Mollah Morgun ndax dafa am ñooy jaar ci suufa daal di koy jox li nga xam ne bii moom mooy ab koppar ba tax mu daal di changé changé bu gaaw gi bay attaque yi nga xam ne bii mooy Ousmane Sonko te depuis le début kii di Mollah Morgun naka da doon mas di défendre ki nga xam ne bii mooy Ousmane Sonko tey naka dafa génn daal ne kii di Ousmane Sonko daal moom na génn daal di wax ndax li nga xam ne bii moom la yor balaa ki fan rek dina ko génne ki nga xam ne bii nag moom mooy Tunkara nekk fee ci réew Amérique moom génn na nee dalal li nga xam ne bii mooy xel yi ndax nee na moom am na fu ko jaarale woon te mi ngi njort nag ne ki nga xam ne ko jaarale fu mel noonu ndax ñi nga xam ne bii ñoom ñooy kii xeex ki kii di Ousmane Sonko nag ñoom lenn lu ne jaral na ko ndax mën nañoo fay lu bare bari ngir ñu yàq ki nga xam mooy Ousmane Sonko kooku nag di Tunkara mu ngi dalal xelu askan wi ne ki nga bi ne bii moom mooy Mollah Morgun wala keneen ak keneen amoon na lu yàq dara ki nga xam ne bii mooy Sonko kii di Mollah Morgun mën nga naka la doy waar ci waxam jooja nee na nag ay audio ak i vidéo la yor te audio ak i vidéo yi daal kenn xamagul ana naka lay demee nee na fekki fan daal moom a dina jël loola daal di koy publier